lan bikum tànnee fu candidat wu Benno Bokk Yaakaar narta yomb ci njiitiram Macky Sall de ba tax l'observateur ne fay ragal nag mu xam problème patas bu tàng jir la ci moom du yomb ndax fa xam responsable APR yu bëri yoo xam ne fa ñuy xaar rek ba Macky tànn ba pare bu leen tànnut ñoom fa ñuy wan ginnaaw Macky ak Benno Bokk Yaakaar aw seen yoonu bopp yéene kaay bi ne man daal faa ragal ne Benno Bokk Yaakaar wote 2024 yii fa ñuy tasaarooye ku nekk xaw sa yoonu bopp te mooy yéene Bokk Yaakaar yi fa ñoo bopp ci làmmeñ wax fañ koo tëggal ndëgg sërëx tànnal ñu waaye boo ñu tànnalee lu ñu doyut fañ la fiy wan ginnaaw wal fajir yéene kaay ne surtout nag bu fekkee makki fa <laughs> Ba pare na pour nekk candidat benn bokk ko makki tànnut ba tànn Abdoulaye Daouda Diallo xalaatut koo topp sax Abdoulaye Daouda Diallo moom fi mu toll nii fa ni ku tàmbali campagne ma nga ca kilifa diine ya ña ngay tudd Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne fa ñu xaar rek makki tànn source a yéen kaay ne pourtant njiitare Macky Sall moom it ci boppam fa leen a wax lu leer naññi su fekkee su ma tànnee candidat bëri ci yéen fa ñuy mer tasaaroo aw seen yoonu bopp su boobaa man mii xam ngeen ne ñàkkuma fayda di campagneal candidat benn bokk yaakaar boobu nga xam ne fa may wóor ne su demee élection fa koy mbuqi dóor ba mu tëdd fay bañ de su ngeen bëggee daal ma campagneal candidat benn bokk yaakaar su ma tànnee fa ngeen di ànd nekk ci gannaaw waaye bu ngeen tasaarooyee faa leen di seetaan de ndax li ma def ci réew mi du ma nangu ngeen ma yóbbu ci élection nationale te su boobaa fa ñuy fori nag waaye di la def ndax dootuñ mën a fayati suñ bor leb ci banque bi source a ne député yi kay fa mel ne fañ doon jooy tuuri ronxañ ca kanam njiit réew Macky Sall waaye dafa ñoo seetlu ne njiit mi daal fa mel ne daal xoromadul leen ca seen càkkutif booba moom daal la ko hitteel mooy fa wax député yi na leen bu leen parrainé kenn ku dul waa benn bokk yaakaar te na ngeen xànd benn jeex na bés bi yéene kaay a xam la amoon 2019 paay ragal Mouhamad yaaw seetal la laaj candidat mënta am moo di fukki député ak ñett yu ko parrainé te gis ngeen waa APR yi ak taxaw ak PDS ca dialogue ba fa ñoo fexe ñoom ba waxtaanee fukki député yi ak ñett ndax kenn ku nekk si ñoom am nga loolu ngir mën a bokk léegi ña ko amul nag fañ leen nar a bloqué ci parrainage bi duñ bokk ci wote yi Ababacar Fall bu Gradec ne gis nga parrainage bi kay nekkul benn yokkute xanaa kay fa gën a deltuloo ginnaaw ñaari parti yi deltu ginnaaw ba fi mu toll nii presque tekkeetuñ dara ci réew mi mooy PS ba Aminata Mbengue Ndiaye jiite ak fa ngay xool ñaari parti yi daal ñoom fa ñoo tànn nekk ay sikkim yóbbaale Adama rek boote ci gannaaw njiit réew rek bennoo rek waaye turbine yéen kaay nee na faa bëgg ñu xam ne gâteau bi ñu doon séddoo ca benn bokk yaakaar fi mu toll ni jeex na de 24 heures yéen kaay ne wote yi di ñëw 2024 ñi nga xam ne fa ñuy bokk ñooy candidat système bi maanaam politiciens yi nekkoon ca jamonoy Senghor da ba tey mooy waa système bi rek ah Khalifa Sall ñu ne fay bokk ci système bi la Karim Wade fay bokk ci système bi la Idriss gaaw fa ngay xool xam nga fañ ko atte par contumace ci mbiru li doxoon diggante mook Adji Sarr foofu yëf yi des na ba tey atte ba des na kon ci gàttal la 2024 réew mi <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañu ja examen BFM bi tàmbali nañu ko ci Sénégal ni ki démb Allah Sud Quotidien moo ñu ko xamal ginnaaw buñ génnee ci baccalauréat Nigéria bi BFM bi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti junne yu toftal ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak benn ñooy wut li jaasa bi fañ leen a tasaare ci junne ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay jury santar ya ñuy examaaye ma nga toll sa junne ak téeméer ak fanweer ak juróom laaj yi leen njëkk a laaj démb nag élèves yi fa wax ne taxu koo saf maanaam fa abordable su ko defee man faay aborder mbiru gaal gu suux ca waaxi ndar ya ma ñeent lañ ca jot a gis ñoo xam ne fa a a kooku loolu moom garaaw na di si jamono ji nga xam ne coowal ñetti téeméeru sénégalais ay ndaw yu dugg ci géej gi na fa ñoo réer ñu ngi koy wax noppeeguñu am beneen gaal gu suux ca ndar info yéene kaay ne waaye ñetti téeméeru ndaw yi réer ci géej gi moom fa bëri ak coow ak werante yow fa ngay xool ab ONC bu nekk Espagne dimanche fa ñoo waxoon ne ñetti bato yu bàyyi ko Sénégal Kafountine def ñetti téeméeru ndaw fa ñoo réer ci biir géej gi àllarba jëwriñ ji ñu dénk wàllu bitim réew fii ci Sénégal fa ko di weddi ba set na loolu xamul waaye démb ONC espagnol waxoon ne ñetti téeméeru ndaw réer nañ ci biir géej gi ba tax tubaab yooyu seen présidente ba faxoo gouvernement bu Sénégal ñu fexe wër ndaw ñoo ñu réer fexe leen a gis moo gën nekk fii di werante docteur Babacar Diop maire ca Thiès ne suñu waxantee dëgg woy politique yi fa ñoo lajj ci taxaw ndaw ñi moo tax ñu dugg ci géej gi rek bar samba bar sàq <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja moo ne njiitare Macky sàll fa sant gouvernement bi ñu jóg taxaw jël mbooram matuwaay ngir wàllu inondation mbënd mi ci nawet bi info yéene kaay ñu ko xamal Le Soleil kaay na ko àdduna ba tey ci koom-koom réew mu Sénégal paxe ba mu ñoŋ moom bés bi yéen kaay moom fa ñoo xamal ne état bu France fa porte plainte avocat Ousmane Sonko bi Juan Branco ndax fa ñoo wax ne fa tudd turu ñaari fonctionnaire yoo xam ne fa ñoo laale fitna ji ci réewum Sénégal te loolu mën naa tax ñooñu am problème vox populi dëggal xibaar bi waaye Juan Branco xam nga lu mu leen tontu yéen ñii fa ngeen di xuppaate waaye la ma waxoon tey laa ko gën a waxaat te ñu bëri fa ñoo Amina Poté ak Kouthia 26 juillet bi ci la ñu jàkkaarloo ak tribunal ba ci fàttali Amina Poté fa porté woon ko plainte Kouthia ca wax juróy ojo ya fi génnoon ba tey lee si ko yéen kaay fa ñoo xamal mbir mu yéeme yaaw fa ngay xool fa xam benn waaye fa xam jabar jabar ja xëy bàyyi ko dem seeti keneen ngir sëy ak moom yëf yee nag métti jëkkër ja xam nga nu mu defam fa jël ay foto yu garaaw yoo xam ne bi mu sëy ak ndaw si photo woon nañ ko mu daal di koy wasaare ci internet bi daal xam le ne kii daal xab soxna la soo xam ne fay doon jaay boppam lépp ngir fayee ko ak yàq deram mu ngoog nag xibaar baa ngi noonu léegi ku nekk wax ci sa xalaat. abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew.